compte euh, tout parce que man militaire agent de l'état du Sénégal mm -hmm. état du Sénégal ma jël sama correspondance yónnee ko état du Sénégal mu mu mu mu mu jox ma ay firnde ne processus bi entamé na ko à l'issue daf may jox kër gi encore une fois le réflexions la du moment boobu la commencé ces maisons là depuis armée dafa tegg woon loxoom ci kër yi. Mhm. l'armée ave le le comment dirais-je l'obligation de disons d'entretenir ces maisons mais depuis 1994 cette obligation avait disparu ñun ñu fa dëkkoon ñun ñoo doon defaraat kër yi kër yooyu encore une fois wax naa leen ko les maisons datent de 1936. Mhm. kër yooyu demoon na ba pratiquement euh, da nga naan sax kër gi da nga koy tabaxaat. parce que fi nga dëkk quand même bu la nit loué kër mais doo toog kër gi di daanu sa kër sa kaw yaa fa yaa fa dëkk ak sa jaboot doo ko ah, defar moo tax nag ngeen defar léegi nag ñu ngi koy ñu ngi ko doon defar mhm. de surcroît bi ñu bi ñu état du Sénégal waxee ne ñun dañu ñu koy jox parce que ah c'était pas du du du loo xam ne mënuñu ko woon gëm parce que terme sud encore une fois am na ci portion boo xam ne morcellement bi demoon na ba am ay civil yu ñu ci jox ba ñu commencé tabax kenn ci ki ñu doon commencé tabax te nekkoon au niveau des du cadastre ñëw na ba ci ñun wax ñu ko ne ñu lii daal yéen a ko moom parce que droit de préemption yéen a ko yéen la ko jox defar ngeen seen kayit ñu ngi leen koy ñu ngi leen koy waaj jox le le processus est en bu aboutiré ku nekk di nga jot sa bàyyi mais nag man mënuma comprendre tey jii euh, parole état parole d'honneur la ñun ay militaire lañu bu la président de la république wax ne demal ci direction bi nga deewee foofu fa fa lañu jëm. dégg nga duñ fi nekk di tergiverser dañ daan dem bàyyi suñu njaboot ci biir kër yooyu des gens sont partie au champ de bataille dee fa bàyyi seen njaboot ci biir kër yi et on les a expulsés le le le le 30 septembre sans pour autant wut palliatif fan lañ leen di yóbbu de façon illégale aujourd'hui c'est illégal et je le dis parce que lan la ñu waxoon comico moom moom. Comico au soir du déguerpissement il y a eu une réunion au palais est-ce que vous êtes au courant il y a eu une réunion au palais le ministre Sidiki Kaba foofu la génnee def déclaration boobu est-ce que de est-ce que lire ngeen l'observateur du du lendemain premier novembre lan la ñu wax ci lan moo découlé de cette réunion là. réunion bi biñ li découlé ci réunion bi. Mm-hmm. le président de la République a fustigé le caractère de tous ceux qui sont intervenus. par rapport à ce déguerpissement. waa mais si sujet rek nga yem ci est-ce que am na am na la Comico a été déboutée. Mhm. ce séance tenante lañ ko génnee ci terrain bi. Mhm. parce que la mu doon wax firndeelu ko teguwul woon fenn dañ ko génne ci terrain bi mu dem yoonam le président de la république naqarloo na mbir mi aujourd'hui am na ci yoo xam ne vraiment euh, ñun du suñu wàll sax ñu taxaw di ngañ quoi que ce les gens c'est des autorités un ministre un sem ga c'est des autorités man du ma fi nekk di leen di leen tuutil wala di leen neenal mais Le... encore une fois ils ont commis des erreurs d'accord ces erreurs là kan kan moo commettre erreur sem gars bi non ñoom ñëpp ñoom nan nan la commettre erreur et vous amu leen ci part de responsabilité on n'a aucune part de responsabilité dans ça parce que ñun euh, nous sommes des agents des des Sénégalais nous ne sommes des Ivoiriens nous ne sommes pas des un terrain privé de l'État ñu installé. les Sénégalais à qui on a prêté des logements. On... et euh, à un moment donné on a voulu les reprendre. il ne s'agissait plus de du problème de logement. Okay. il ne s'agissait plus de logement de fonction bu doon loolu la encore une fois je vous dis tout de suite que armée bu la joxee logement ne la génnal boo bañee 48 heures sax ëpp na ëpp na. la brigade prévotale la ñu dépêché mu ñëw fekk la fa nga fa nga nekk mu déjjati la yóbbu la. Ah, en tout cas avec toutes les sanctions